La la! Est-ce jërë ngeen jëf mbokk yi topp seen télévision Lamp Fall tey ñi ngi fii ci Daaru Xafoor ci bisub maam Saalihu Fall bokk ak maam Cheikh Ibrahima Fall lépp tey jii nag di bisam ñu koy màggalal fii ci Daaru Xafoor ci teewaayu euh, Serigne Dame Fall xalifa maam Saalihu Fall di ñaan suñu borom dal ko fa yàggal bu baax a baax ñi ngi fi nag teew fi kanamam rek fas yéene euh, sàkku ci moom ay kàddu yu soññee ak kàddu yi naka la ñuy dundale bis bi fii ci Daaru Xafoor mu mel ne ci subaak léegi mboolem kilifa yoonu murit gépp teew nañ fi Cheikh sidou Mokhtar yable na fi mboolem njabootuk maam Cheikh ibrahim Fall gi tam téw nañ fi ak Cheikh yëpp no dekk sunu micro rek sëriñ bi ngir mu léralal nu rek naka lañuy ñuy taxawoo tey bis bi nga xam moy bisub sëñ Saliou Fall. ci Daara xofor ter mam Saliou Fall tok fi ci kilifaam ki ko fi nibootu muy sëriñ dam Saliou Fall di ab khalifaam di juróomeelu khalifaam ñu tuddé ko sëriñ Daa Abdourahmane Lo li ko waral nak moy màggalu Daara xofor màggalu Daara xofor tamit li sabab bi moy maanaam ndigal lu Serigne Touba digaloon maam Saliou Fall mu koy def fu liggéeyu jumaa ji tàmbalee ci xibla bu ne mu am lu mu ko fa defal. loolu la loolu la Serigne Saliou daan màggal ndax bànneexoo ndigal lool ba weer wu ne bu feeñee mu fanaani ko euh, jàng alxuraan bernde ba weeroo dem kon ci at mi mu ko daan def fukki yoon ak ñaar ci at mi. bi mu demee ba wàcc liggéey xalifaam bi ko fi njëkk wutu sëriñ Modou Saliou Fall noonu la ko daan doxalee bi mu demee tey ba sëriñ Modou Saliou wujji baayam ba sëriñ Modou maam di ñaareelu xalifaam noonu la ko daan doxalee ba bis ñu dem siyaare ji sëriñ Fallou Mbacké mu ànd ak sëriñ Abdou Ndakaaru ak ñeenti magi taalibe yi bi ñu àggee sëriñ Fallou ne leen sama baay maam Saliou Fall de ndigal loolu ko Serigne Touba joxoon man na ndax liggéey jumaa ji la wante liggéey bi àgg na damaa bugg fukki fan ak juróom ci weeru barxam ñu souvent bu jotatee ngeen ngeen ngeen màggal ko fanaani ko màggal bës set ndax bis boobu maam Saliou Fall dina jógee tuubaa ñëw Daaru Xafoor ne fa ba bës set te nit te ku koy màggalal bis bi nga xam ne nii fa lay euh, fa lay nekk nga dàq ko fa moo Serigne Saliou Fall dafa war a ne ci digg bi di xëcc fee di xëcc fii loolu moo waral màggalu Daaru Xafoor kon màggalu Daaru Xafoor ni sëriñ bi digle woon màggalu Touba ne nañ ko ci sant la yàlla noonu la digale woon sëriñ Saliou Fall tamit ne ko xibla booy xibla yooyu ci jumaa ji de ko ko jox ko ci ndigal mu am lu mu ko fi defal sëriñ Saliou di bànneexoo ndigal loolu ba jamonoy sëriñ du Fall mu soppi ko mu mel noonu. Daaru xafoo tamit di dëkk bu màgg bu sel képp ku fi ñëw suñu borom jéggal la say bàkkaar fii ak fañ jëm te lépp lu waaye di bëgg bëgg ñu jéggal la rek moo tax sëriñ bi léegi léegi nii rek nee na képp ku fi ñëw tey dugg ci bayti bi sa yaram arama sawra suñ borom ne la loolu waxi sëriñ ba ma ko wax ci kàddoom kon dañuy sant yàlla bu baax a baax di ko ñaanal moom sëñ Dame Saliou mu yàgg fi lool te wér te gudd fan ba naalam yi waajuram yi tàmbali woon mu àggale ko na mu ko bëggee ak magam ya tey am nañ ci yaakaar bu baax a baax ndax maam Saliou Fall miy waajuram sédd na ko tey bàyyi woon na ko xel lool lool te waa waajuram tamit liggéey na ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall liggéey ci kër maam Sali Fall sëñ bi tamit xolom bi nee na man sama xol bi làmm naa ko fépp waaye gisuma ci ak iñaan gisuma ci ak soxor kon nag turu bi rek la wuy Sëriñ Daa Abdourahmane sant yàlla bu baax nag di soññ suñu bopp di soññ taalibe yëpp ndax sëriñ bi bu ngeen génnee foofu liggéey boobu moo ko fi sumb di ko liggéeyal waajuram sëriñ Saali Fall tey toogut ba doon xalifa maam Saali Fall di ko liggéey bayti bii ñuy ziyaare maam Saali wàcc fi liggéey bi mu koy liggéey boobu ma nga njaareem yónni ay taalibeem laaj ci ndigal sëñ Abdou mu jox ko mu liggéey ko ba mu àgg mu jébbal caab yi sëñ Abdou Ndakaar bi mu koy jébbal caab yi la ko ay taalibeem liggéeyal këram gi mu nekk ne kon jëfal sëriñ bi rek moo wóor sëriñ bi moom lépp lu ko waay jëfal ci lu baax dina la fay ba nga lu baax ba ma engagé waat fi ab liggéey boo xam résidence Mame Saliou Fall bi nga xamante ni def nañ ko li liggéey lépp ci xaalis bari na lool jëru sax ñu koy tudd waaye sëriñ bi dafa jël alalam yëpp def ko ci kenn fekk gu ko ci dara lépp moo ko jël ndegam sëriñ bi nag moom moo moo bëggee loolu lu baax moom Mame Saliou Fall di waajuram sakamtula ñunu taalibe yi muy résidence Mame Saliou wax ne kuule rek moo ci des te yeneen ñaari ñeneen ñaari bâtiment la yu jàkkaaroo yoo xam ne biñ ko xoolee li ko war a liggéey ci na lool ak daaray alxuraan ji fekk mi ngi fi ne liggéeyal maam Saliou Fall rek fi la fas yéene nekk ndax Serigne Saliou Fall taalibeb Serigne Touba bu am ngërëmam kon nag yelloo na kër yëpp népp nu ñuy mel mu defaral ko ba këram gi mel ne te kër gi nii dafa doon kër këru barkeelu goo xam ne waa doomi Serigne Touba kenn ku ne teg nga fi sa tànk li ko tàmbalee sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou sëñ Abdoulaat sëñ Abdou Khadir sëñ Saali Mbak kenn ku ne teg nga fi sa tànk sëñ daa Abdourahman Lo kon ñooñ bu du woon sax li ko maam Saali sant waaye ñooñu fa tegoon seen tànk rek kon war nañ koo defar ba mel ni kër yëpp sant yàlla bu baax na sëñ bi tey mi ngi soññ boppam di soññ taalibe yëpp képp ku bëgg lu baax wala nga wala nga doon ab jullit wala rawatina am rawatina ab Baye Fall mi ngi lay woo ci liggéey bii mu sumb fii ci Daaru Xafoor màggal gi nag moom màggal la goo xamante ni képp ku fi ñëw rek rafet nañ ci yow njort ne incha allah di nga am tawféex taysir tawféex ak taysir sant nañ bu baax a baax di leen sant yéen waa Lamp Fall Yane FM ndax am ngeen ànd ko ak ñun Aline Badara Aline Badara Ndimi ak maamu Ndaw mii ak suñu euh, sët bi Cheikh Moutalata ñi mboolem ko fi teew rek ak suñu caméraman bi sëñ bi mu ngi lay ñaanal yàlla defal la tawféex ak taysir sàmm la aar la yiir la ci barke waajuram Serigne Saliou Fall sant nañ bu baax a baax. waaw guddi gi moom niñ ko fas yéene dimbali biñ ñu xëyeeg léegi wàcc nañ fi juróom-ñeenti kaamil i xasaayit yoo xam ne ci bayti bi fi fi lañ ko jàng ay xasaayit ak ay salaatu ala nabi guddi gi moom ni ñu koy dundalee xëy di jàng alxuraan ak di bernde suñ demee ba ci guddi ay conférence ay waxtaankat ci maam Salifa ak dundug maam Salifa ak ni mu doon màggalee bés bi ci loolu lañ fas yéenee def durus ba bés set ñu si àggale ko sikkaru Samfal buñ xëyee sëñ bi yeewi mbooloo mi ñaanal ñu waaw dina am te benn lu xeetu cérémonie de remise boo xam ne dinañ ko amale fii ci biir kër maam Salif di waxtaan ci dundug maam Salif Fall 18 lay doon waxtaan ci dundug maam Salif Fall ak mag ñi àndoon nag moom ak tamit ñi nga xam ne moom la àndoon nekk nekk ci Serigne Touba. di sant yàlla bu baax a baax di xam ne daal ñun daal Serigne bi daal mi ngi nii ubbi na ay buntam tàllal na ñëpp loxo. ndax njariñ bu ko yoree da ngay da nga koy yaatal ndax suñ borom nee na lépp loo yaatal rek suñ borom da ci def tawféex def ci taysiir sëñ bi nag moom na boppam yëpp turam bi daal ëmb na lépp sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam di sant sëñ Saliou Fa di ko ñaanal moom mi mu yàgg fi loolu te wér jàmbaar lool faal ku la bëgg la ku la doyloo ku la yaakaar guddi ba ci dem lépp am yow képp am nga fi Thank you. Thank you. bët sa bët sa ndoxu bët daf ciy taxaw ba faw kooku moom moom kooku mooy waajal Cheikh Rafal ñu gis ñu ne ba mu gisee la ne naar bi gis na sama sëriñ bu baax ba léegi lu sëñ Bamba wax tàllal leen loxo yi. xaasatan xaasatan maa ngi ñaan ci daraja Muhammadu Rasulullah yi. nga xam ne yàlla de yàlla bi mu nu soxlaa bëgg noo woo ci moom la nu jaar. ñaan ci leeru alxuraan. barke Serigne Touba ak mboolem wàllu yu Sénégal yi yàlla yàlla na ci jaar faj sunu aajo defal nu ndimbalul say ak baatin yokk gu ànd ak mucc wér gu ànd ak liggéey di ko jariñoo ba gudd fan lool bu nu waree dem àjjana yàlla bu nu wopp yàlla na dox ndànk dugg àjjana barke Mouhamadou Rasulullah barke maam Cheikh Ibrahima Fall waxtam la ko la baa bi mu defaatee xool salihin la xayraati yàlla tawi la naa xirana say dana أسبل ستوري أسبل أموري أسبل أموري أسبل أموري أسبل أموري أسبل أموري ndaxte su laaj sëriñ yëpp sant sëriñ Tuubaa sëriñ yëpp woo sëriñ Tuubaa yeeg naa leen sëriñ léegi mu daal di jaay ci yàlla lépp jox woo sëriñ président yi yàlla lépp ñëw yàlla ko jëriñoo danga jàmm kër yi àjjana yàlla bu gaaw a fat allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim barke Xaadimu Rasuul ñëw na de Yeah. <laughs> mosuma ak ñoom Ndaw nga waaye ma nekk sëtu Sëñ Tayba dalal tey di Aline Badara Ndiir ak sëñ Mamar Ndaw mii nga xam ni samay wóolare leen samay xarit lan ah ñu laaj ma ci ki nga xam ne nag mooy sama wasila sama baay moo ma jëloon teg ma ci loxoom ma jébbalu ci moom en 1977 loolu yaa 40 ans la sama baay Mbaye Akal moom ma yóbbu ba ci maam Sëñ ba Ñaŋ ne ma kii moom laa la mu jéppal ma ko maam sëñ Taïba Niang ni li ñu ci xam ci li ñu ci nettali ñun ak li ñu fekk ci jamonoom lépp du fi xaj waaye fii ci daaru xafoor tey am na lu ñu ci war a mën a muusal tuuti wax leen ko mag ñi wax nañu moom wax nañu ci làmmiñ ne maam Saliou Fall moo ko newoon sëñ ba mu ne ko naam Fall Yaram sëñ Taïba mu ne ko Fall Yaram mu ne ko def naa la ngay sama taaw ndax booba maam saaliyu Fall amagul doom ju dëgër. waaw mu def ko ab taawam maam sa Serigne Taïba ba nekk ab taawam ba mu demee ba toll ci di seexal seex nag soo ko déggee rek mooy ku làq ngërëm mooy seexam bi ñëkk ci ñaar fukki seexam ak juróom-ñett yi nga xam ne ci archive li ma ci yor loolu la toll ndax am na lu ma ci fekkewul teen bi nga xam ne nii nee nañ moog ay nu ñoo lëkkale yàlla mi dara tawul def na gas nañ ko ay weer wala ay fan ci ni lu wax ca ne ko fekkee ndax sama baay ca la woon. maam Saliou Fall dafa woo ba maam sëñ Taïba Niang ba mu ñëw mu jóge dala ànd ak fere yi ñëw ba mu ñëwee mu ne ko sëñ Taïba mu ne ko mu ne ko Fall yaram sëñ Taïba mu ko Fall yaram sëñ Taïba mu ne ko Fall yaram su ma su ma keroog dégg naa ngàdd guro la ko nuyoo woo weex mu ne ko sëñ Taïba ci ci ci jinne di la jël nañu lool ci teen bi nga xamee ne nii day ah saa boo xamee ne nii lu nu yëndoo gas rek su ngoonee ñu suul lu nu yëndoo gas ñu génn ñu suul mu ne ko loo ci bëgg Fall mu ne ko li ma ci bëgg day mooy soo ko bënnee ma bënn la ca waxee mag ñi ci njëkk yi bënn na xam ngeen la may la may damay jëriñ mu ne ko ah Fall yow dey luy seen ndigal rek manu na waaw sëñ tay ba ba mu ci xëyee yàlla mi dara teewul def laata tàkku seen judoot teen bi bënn ba tey jii mooy teen bi ñuy wax sam-sam ñii di ko wooye aynu ba tey jii ren lan ko defar nii defe ko teenu barkeelu ñu ne lépp loo xam ne na waaji waaye faje ne ko ko mu fajoo mu wëral ko yow nag maa ngi lay sant di la gërëm sëñ Taïba lan ndax bu ñu doon mag nga bu ñu doonee wax mbaay doon mag nga ñëw ci sëñ Saliou Fall wala ndax bàyyam da ko jox sëñ Saliou wala ndax bàyyam moo jëbloon sëñ Saliou Fall maanaam lan kañ la jëblu sëñ loolu li ma la ciy wax sëñ Taïba ko ci làmmiñam sëñ Taïba ñang laa la wax moo ma wax ci làmmiñam ne ma moom de sëñ Taïba ñang ci boppam moo wax ci làmmiñam ne ma keroog ba ko bàyyam di yóbbu muy jàngi jaar na ci sëñ bu mag bi mu ñaanal ko ba mu jàngee ba nga xamee ne njàng ma fa mu toll toll na fa liggéeyal na maam Thierno Ibra Faat Ndaama Daaru mi nga xam ne moom na ñuy ñaanal tey ji nga xam ne bis bii tey jii taarixu bis bi ñu bëree baree bari ñu ngi koy laajte sëriñ Fallou Mbacke moo boole woon nit su saabaan bi fukki fan ak juróom ci weeru balax ni nu koy waxee ñu ne saabaan ah bisub maam Thierno di rakki ku tedd ki maam Xaadim Rasul Mbacke yàlla ak bisub maam Saliou Fall. rakki maam Cheikh Raay Fall Baabul Muridiina léegi li ma ci laaj mooy ba mu liggéeyalee Cerno ba am ngërëmam am bagage yu mu daan jëlee ca Daaru Musti ndax Cerno Daaru mussi la féete woon ba mu ba nga xamee ne léeg jóge na foofu di di ko yóbbu di ko yóbbu kër gu mag boobu sëñ mag bi sëñ ba sëñ baa ngi kër gu mag yàlla mi dana tëwul defee ba nga xamee ni nii dina romb di romb ba benn bis am magam ju ñuy wax ah sëriñ Kaang Ñang ju nekk ci kër maam Cheikh Raye magi sëñ tay ba ñang laa lay wax de yàlla mi dara teewul def mu ne ah tey de naa teg bagage yi barkeelu ci ku tedd ki nekk fii seetaale sama mag ji nekk fii mu jàdd foofee kër seex maanaam soo jegee daaru mu si defe naa ne jaa jëm jëm kër gu mag da nga jaar kër raccourci koy wax mu mag mu fa su fa mu fa ngi digale jaar fa ngir di nuyu magam magam ba mu ñëwee mu dalal ko nuyu ko ci mu ne ko nag kaay nuyu ko tedd ki mu ne ko ku tedd ki kan ñoom ku tedd ki ku tedd ci ñoom ku ñu siyaare ko koñ ku tedd ki muy maam Cheikh Naye Fall mu nuyu ko mu ne ko ndoo nga ana fa bawoo mu ne ko Daaru si ana fa nga jëm mun ne ci ku tedd ki kër Sëñ mu ne ko ah yow kat yow kat yow yow kat noo tudd mu ne ko sëriñ tey ba ñang laa tudd mu ne ko ah ñang mbaaloo mu ne ko ah waa nit moom bu liggéeye ba wàcc ah la muy yittewoo mu ne ko xanaa ku ko añal mun ne ko yow nag sab añ fii la ne ca sa mag fii la ne keroog la joxe boppam wallaay seede laaw waaw keroog la joxe boppam waaw loolu noonu waaw baa baax noonu baax la dolli leneen. 他们给食用嘛，怕浪费。